Euh, li ñu fi dajale moom mooy euh, gën a yokk formation ñi nga xam ne ñi dañuy former xale yi maanaam euh, former des formateurs ñi nga xam ne ñi dañuy yor ay xale di leen jàngal carrelage ak xale yoo nga xam ne yi peut-être ñoom tamit dañuy ñëw dugg ci formation yi pour ñu former leen loolu daal moom moo ñu fi indi pour gën a yokk xerañte suñu éléments yi nga xam ne ñoom ñooy def carrelage. waaw tey boo xoolee yegg nañ si juróom-benn fukki nit ak juróom-benn. su ma jumul loolu lañ ma jox ci liste ci présence yi. 68 juróom-benn fukki nit ak juróom-ñett teew nañ fi ci formation bi. te defe naa ne ñoom ñëpp bi ñu leen dégloo aussi tamit laaj nañ leen ndax li ñu leen jàngal dégg ngeen ko ndax dina leen jariñ te euh, seen réponse mooy waaw. bon liggéey tu sais connaissance moom mooy liggéey te defe naa ne am na lu nga xam ne lii dafay euh, doon lu bees toujours ci métier yi comme euh, métier yi ngeen yor tamit am na toujours lu bees lu nga xam ne lii day juddu. loolu moom euh, day doon ay difficulté bu fekkente ne jànguñ ko euh, pour mën koo defee ni mu waree parce que toujours euh, dafay am ay matières yoo nga xam ne yu bees la ñuy doon ay équipements yoo nga xam ne yu bees la ñuy doon ak ay produit comment dirais ay carrelage yoo nga xam ne yu bees la ñuy doon te boo xoolee li gën a nekk difficulté moom mooy peut-être accéder ci yooyu nga xam ne yi moom moo ñuy yombalal ñuy mën a effectuer suñu métier ak euh, du mën a def euh, comment dirais-je carrelage nga xam ne peut-être clients yi ñuy dénk dinañ am euh, contentement bi nga xam ne bi moom la ñuy xaar ci ñun. du benn regroupement bu ma mës a dégg ne ah, yëkkati nañ liggéey jox la ko peut-être des fois on dit que ne da ngeen jaarul ci yoon wala dangeen utul kayit yi ngeen war am waaye je dis ne concurrence bu fekkee dafa am nga jël nit ki kat nga ne kat comme ni ma xeese nii ci biir nit ñi nga ne ku xees du bokk bu boobaa defe naa ne génn nga ma déjà buñ ne supposons. société bu amul euh, fonds société boo amul euh, comment dirais-je garantie duñ la jox liggéey defe naa ne génn nga euh, ñu bëri ci loolu nga xam ne lii moom nga war a joxe. kon boo ko damay wax ne état bi moom gisaguñu daal seen njariñ ci comment gisaguñu seen njariñ ci suñu métier.